Baye. jaar naa la wér a baax nag. tey ngeen ngembee Ahmed Deme indi ko damaa gis léegi caaray ci lu ma gisul waan ci caaray wala bi ma dawee dugg ci làmb la gisuma ko ci caaray kuy bëre muy ndaw muy mag dañ koy uuf ñëpp ñëw ànd ak moom lan la. waaw dañuy sant yàlla suñu borom rek ñun Seydina Mouhamed mais ñaareel sama ñaar waajur yàlla tëbbaleel àjjana boole mu nekk na si yàlla yow appel bi ñu déggee nii yàlla na yàlla soo fekkee doon ñu bëri lépp fa ñaan rek yàlla na ko yàlla suñu Sénégal ci dëkk àdduna bépp barki Seydina Mouhamed Ahmed Deme su ma rakkaloon su ma lépp la nit ku baax la yaa ngi dégg yàlla na ko yàlla soo borom defal la sama combat ak xoyantaan euh, la yi mobilisé wu ñëw taxaw mu yàlla may ma ndam ñëw taxaw ko yàlla may kandam kon am benn tam ba may kooban kay taxaw du ne yàlla suñu bopp defal kandam loolu kese la quoi ak loo xam daal du ko yàggee ban bëri suñu biir kon kon kas jar yéen nayi ah mais ngeen di bëre yow booy bëre fi ñu toll gis caaree gépp boot la nekk sa ginnaaw pression lay def def ci non dafa ne la non man dama pression de man moom man ama problème yooyu ay pression esat mooy su ma ñëwee esat lu ma am boo caaree gépp ñëwoon sama a waaw loolu quoi. waaye ba diggante ak Zarko taxaw na wala taxawul. Zarko ay sa waay man damaa bett. damaa wax bett Zarko. ndax Zarko sama combat ak moom moo gën moo ko taxawaloon te coronavirus ba taxawoon. si diggante bi moom moo amoon ay ay quelques problèmes yu amoon. yaa ngi man ma dem jëli xoyantaan mu jëli mbéy guy bi ma bëree daan mu bëree daan moo gën bëgg contrat boobu ko dina ñu waxtaan ne kenn nag suñu ñaar mën nga jox ndàmpaay pour combat bi amaat bàyyi man du ma lekk riba ndax moo ngi joxoon ma xaalis sa corona ba lépp leen tiis rek pare naa pour bëri yaa dégg de ngi dem rédaction waxtaan man ak moom ak nga fa nekkoon ñëpp yaa ngi dégg mu nar ma faa dépassé ñu am lu fa def ma moom ci rédaction bu ñu xëyee Sénégal nga yaakaar combat bi taxaw na yaa ngi dégg ñu xëyee di ko woo di ko mocce pour mu jël combat bi mu ay mu bekk ñeeg quoi mais dina ko jël si nii wala ci naaw ak lim la wax yëpp barke Rasulullah jëlee ndax am na ko romb léegi faram faram deux faram tout nee naa ko faram tolloo sa waay faram ñu ngi moom na jël combat bi yaa ngi dégg moom nee na moom mooy xale man maay mag na jël combat bi ñu xool bu mu lekk riba moo koy joxoon mu xaalis bi yàgg naa moom jokkoo naa ba lan la ko na d' rek a d' accord même Zarko moom rek. non est ce am na lu ragal ci yow ndax Zarko ndaanaan la. man ngay waxal de man ngay waxal mbër yi bëri ci làmba ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp booy boo ma jéggee da ngaa soxor wala ba ngaa bañ bàyyi ma ñor man bu ma bu dul làmb sax aw ma gën ragal doomu aadama man bu dul làmb sax aw ma gën doomu dama dama ragal yàlla borom man dama ragal dara caatu na li ma koy wax rek moom nee na mooy xale na jël avance maanaam maanaam avance sax na na dem jox encore am ñu bëri wala quoi léegi bu Zarko ñëwul nag jël avance bu yàgg léegi bu Zarko ne bëriwul nag day bëri far fos bu bëriwul doo wuti adversaire ma ne Zarko day bëri ci nii wala ci naa ku lekk avance tuddi ko lekkoon na xaalis sa corona ba def benn live man moom moo gën ak ku ñuy wax buzz te ci Instagram xaw ma kon nag bu ñu tollee fi tey yaa ngi dégg moo gën yor liggéey ko bu ñu ko joxee sa corona ba corona bi jeex na am na fi combat daan am na fi combat daan mais nañu ñu àggal ba xool leen ko am jeex yaa jëpp baax wala ay sër ko